lu ñu ci gisul lu dëppawut ak moom lu ñu yonent bi indilul euh, cànkute la goo xamante ni buñ ko toppee du ñu yóbbu lu dul safara ab yonent daal musul nekk jigéen te du ko nekk bu mukk kon nag jigéen ñi yàlla nattoo na leen ñu bañ a nekk yonent yàlla itam nattoo na leen seeni buur du bari jigéen nag léeg-léeg mu nekk buur kon jàng neen ci alquran ca suuratu saba amoon na jigéen ju nga xamante ni buur la woon waaw mu di Balqiis waaye gis ngeen na ko góor note ndax Suleymaan alayhi salaam dem na ba not ko mujj gi takk na ko mu nekk soxnaam kon dafa ni buur la waaye nguuram mujj na amatul solo la tax amatul solo mujj na nekk ci suufu kilifteefu góor kon ba tey loolu dafa bokk ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi yàlla nattoo na leen itam tukki seenu tukki ànd ñoom dong wóorul waaw tukki jigéen ànd moom dong wóorul moo tax ci lislaam lislaam daf ni jigéen bala tukki na ànd ak koj armalam na ànd ak koj armalam maanaam koo xamante ni eh, amul droit ci sëy ak moom lu demee ni ki e, magam bu mu bokkal baay wala bu mu bokkal ndey wala bu mu bokkal ndey ak baay wala jëkkëram wala rakku jëkkëram waaye nag ne condam yow dong tukki loolu ci lislaam yàlla dafa ko araamal ci jigéen ñi kon nag jigéen tukki moom dong loolu itam lu ñu tere la ci moom feek muy ànd ak lu dul rek dafa ànd ak koj armalam mu mel ni kon bokk na ci natt yi ba tey itam du farata ci ñoom ñuy julli ji jumaa ak li jumaa di foor yépp ndax julli jumaa yi wi ci nekk bari na waaye jigéen ñi dañ leen ko tere dañ leen ko tere surtout jànq ji li tax nag ñu tere leen ko du dara lu dul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ci góor ñiy julli ji ndax mën naa tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat xalaatu àdduna waaw moo tax nag ñu tere leen ko waaye màggat yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara ñooñ mën nañuy julli ji àjjuma waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata waaw léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom nga xam ne bu ko defee baax na su ko deful itam eh, lislaam amul benn daan bu ko ciy teg ñu ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko saydatuna xawaa ak njabootam moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom jigéen kenn mënul mucc ci ñoom ndax alquran sax moo wax ne na inna kaydakunna azim yéen jigéen ñi seen pexe pexe mu rëy la waaw kon li seytaane di am doole yépp li seytaane di mën a fexe yépp wax nañ ne pexe jigéen moo ko ëpp doole moo ko moo ko moo ko moo ko gën a rëy looloo tax yàlla wax ne koy def cheytaani kaana daifa pexem cheytaane pexe mu doye di la waaye nag cheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarele ko ci jigéen moo tax yonent bi wax ne jigéen ñi dañuy buumi cheytaane ñoo di xabailu cheytaan ñu ne moo tax soo bëggee defar soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc nee na defaral jigéen ba noppi soo bëggee yàq penc ñu ne yàqal jigéen moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la soo ko préparé nee na lu ca génnee baax waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon kon mu mel ni daal bala société bee baax fokk ñu defar jigéen ñi def ci ñoom jikko yu tedd def ci ñoom itam habitude yu tedd su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax penc bi dana baax waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi kenn jàngalatu leen waaw jigéen ñi kenn jàngatu leen jàngalatuñ leen yaratuñ leen ci biir kër yi dañ leen bàyyi rekk ñuy wër ci mbedd yi wër googu nag mu indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc ci yàqu nañu ko kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañu ko ñàkk mucc ci jigéen ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi yonent bi nee na bàyyiwuma ci yàlla rocc na ko ci iblis ba mu set ñu ne itam bu juróom-ñetteel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub yàlla tëj na ci iblis buntu tuub iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam a ah, na ko yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo ba a tuub ndax wax na nu ne yonent yàlla Muusa alayhi salaam moom la yàlla joxoon dara jaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi ku dul moom nag Jibril lay ñëw di dem dox ci diggante bi bu kii waxee jibril yóbbu bu yàlla waxee jibril indi waaye yonent yàlla Muusaa rekk moom moo am dara yi jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja waaye dana dégg baat bi moom nag dafa tase woon ak ibliis iblis ne ko Muusaa man daal dama jaaxle depuis ma xuloog yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ci wax wax bu baax ndax daal ba ma yàlla bàyyi la ma ñëpp bàyyi léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara ah yonent yàlla Moussa ne ko kon baax na danaa jéem a dem giseeg yàlla ba xam waxtaan ak moom su ko defee léegi eh, ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo ak moom wax ne na bi nga xamante nii yonent yàlla Moussa dem na ba waxanteeg yàlla yàlla daf ne ko ah, man de li ma ko tere woon mu bañ loolu rek laa ko meree su fekkent ne nag nangu na ko ah ñu delluwaat ànd ñun ñaar man kay ba ñu ànd ak moom wante dama di kilifaam rek tere ko mu bañ digal ko mu bañ su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom amul benn solo bu ñëwee dañuy juboowaat su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon euh, mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na jootal aadam ah yontu yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw bi mu ñëwee dal di gis Iblis ne fa man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu nee na daal moom amul benn problème ndax yërmande moo jiitu meram mere na la waaye lim la digal boo ko defee rek moom dangeen ngeen daal di jubawaat mu ne ko lan la mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal Adam boo ko sujootalee rek moom amul benn problème da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit nga bokkaat ci jaamam yi mu gërëm. mu ne ko ah yàlla daal bëggul ñu juboo aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ mu dee ba nekk yax nekki fënax euh, ba nekk yax bu fënax mu bëgg ma sujootal ko man ko ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal bu dee loolu la daal duma ko sujootal ba mukk kon daal baax na daa di wëlbati daa daal di dem Moussa itam daa di wëlbatiku dem loolu moo lay wan ne kon eh, ku sori yërmandew yàlla la waaw te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub ndax su jootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla waaye diis na gan gann gann ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu ñooñu jóg julli day diis ci ñoom buñ ko dee def da gis nañuy tàyyeelee duñ ca sawar day mel ni ci lu difficile la nu jëm te kat noonu la julli yombe niki itam su jootal aadam ni mu yombe ci kii yàlla gërëm ba bu ñu la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal waaye noonu la nekkee problème ci iblis kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub ñu ne itam bi ko juróom-ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku féttéerlu yaani xaaliyan min al xayri wa iblis ku viddu la ci def lu yiw ci def yiw ak yërmande iblis amul yërmande dara dara dara te itam ibliis amul yiw foo ko fekk lu bon rekk lay def lu bon rek la bëgg ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg xoolal coxorub iblis coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara méttee moo tax kon ñu ni a cheytaanul marid mooy cheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek metit bari na nit ñu feebar ñoo xamante ni seytaane bu li ñuy tuddee seytaane bu féttéerlu seytaane yi féttéerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def léeg-léeg ñuy ëf ngelaw nit ñi yooyu yépp seytaane yu bon yi ñoo koy def ndax lu tax amuñu yiw te itam amuñu yërmande bi ko fukkeel itam ñu ne iblis moom mooy discours kat bi nga xamante ni ëllëg yowmal xiyaam mooy taxaw ca safara di discours nag di waxtaan ak nit ñi daaw ndax moom mooy kàccoor bi nga xamante ni lu bon rek la xam te itam képp ku jëm ci lu bon moo ci sa ilimaan ñu ne waaw kon jaan mi nga xamante ni moo dugaloon iblis ca Euh, aljanna ba tax mu trompé maam aadam moom lu ko yàlla nattoo ñu ne yàlla nattoo na ko juróomi yëf ba ci njëkk moo di yàlla dagg nay tànkam muy doxe biiram waaw jaan ci biir lay doxe waaw ñu ne itam yàlla masxu na melokaanam wu njëkk wa ndax jaan dafa rafetoon yàlla def ko nag jox ko melokaan wi gis nga boo ko xoolee sax xam ne rafetoon la waaye nag noonu la ko nit ñi ragale bu ñetteel bi itam moo di yàlla nattoo na ko muy dunde suuf jaan suuf lay dunde mu ne itam yàlla nattoo na ko at mu ne mu dee jaan benn at lay am rekk dal di génn àdduna ñu ne itam yàlla def na ko mu nekk noonu doomu aadama moo tax fu mu ne tëll ci biir nit ñi rekk yet yee xeer yi dal ci bopp bi ndax dafa nekk noonu nit ba faw loolu yàlla moo ko ko nattoo ñu ne itam yonent bi nga xamante ni lu mu wax noonu la te laa yantaxu anil hawa moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daganal na ni jul nit ki bu dee julli ba gis jaan am na droit rey jaan ja soo ko continuer julleem boo nekkee ci armal itam eh, wax neen la ne la liñ lay tere tere nga rey su gisee jaan mën nga koo rey kon ñoo xam ne kon ndeke jaan noonu la bu nga xamante ni ni seytaane nekkee noon ci ñun noonu la nekkee noon itam ci ñun mu mel ni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamante ni gëm neen yenn awham yi wax neen ne rab yi nga xamante ni daneen di seytaane yi nga xamante ni daneen faral di soppeeku yi ci ëpp jaan la ñuy soppeeku waaw ndax kat moo doon ka nga xamante ni ba ñu ba ñu ba ba seytaane bëggee ay ci nit moom jaan moo ko dimbale moo tax nag mu faf nag nekk noonu nit ba faw ñu ne nag bi nga xamante ni yàlla dogal na ci dogalam yu jiitu ya ne aadama dana ko moy ba tey jii suñu maam aadama moy ko moom suñu maam aadama ba mu jéggaloo yàlla de yàlla jéggal na ko jéggal na ko waaye ba mu ko jéggalee itam wàcce na ko fii ci kaw suuf wante mbokk yi wàcc bi nga xamante ni suñu maam aadama fas yéene na ko wàcc fii ci kaw suuf war fee nekk xalifa yàlla fii ci kaw suuf ak ya ca topp yépp insha allahu ci ajuma bi da ñëw ci leen ko fas yéene waxtaane seen mbokk seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw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 Thank you.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 ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokki jullit yi mbokki déglukat yi comme nanu ko doore woon ci ajjuma yi weesu te moo di waxtaanu sayiduna Adam alayhi salaam moom lanu fas yéene tey ak yéen mbokk yi gis na ne suñu maam Adam alayhi salaam ci waxtaan wi weesu gis na nañu waxtaan wi doxoon diggante borom bi ak malaaka ya keroog ba yàlla bëggee jël Adama def ko xalifaam fii ci kaw suuf wax nañ leen fa ñu jaar ba yàlla convaincre malaaka yi waaye gis nañu ci mbir mi ne maanaam wutal gi yàlla wutal suñu maam aadam fii ci kaw suuf gis na nu secret bi ci nekk xikma bi ci laxasu moo di ne su fekkonte ne yàlla dafa jël ay malaaka indi leen ci kaw suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu aadama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jariñoo ndax dañu wax ne la yaxfa an istixlaafa aadam fi l ard yashtamilu ala saam min alxikmati alilahiya allati xafiyat ala almalaika fa inna allaha taala law istaxlafa almalaika fi l ard lama urifat asraru hada alkawn wala stuxrijat xabaaya al ard wa kunuziha li anna almalaika la yaxtaajuuna bi tabiatihim ila ma yaxtaaju ilayhi al insan min zurucin wa thimar wa min sanaatin wa tijara fi hada al kawkab wa hiya tilka al ashya allati saxaraha allahu lil insan yaqdi biha xaajatihi wa ragabatihi ñu ne su fekkonte ne yàlla dafa jël ay malaaka wàccee leen fii ci kaw suuf mu nekkoon njëriñ ji nekk ci suuf malaaka yi duñ ko mën a exploiter ndax nit ko ndax jëmm joo xamante ni du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lu dul jaamu borom bi wéetal ko kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génnee jamaa bi ci nekk ak or bi du noo itam am yitte ci bay duñ am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dina tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rekk ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax ndax amuñ ci suuf benn aajo moom kay yàlla rek leen amal ajo te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aajo ci suuf am ajo itam ci yàlla moo tax yàlla ne wabtaxi fi ma ataaka allahu daar al axira sa tansa nasibaka min addunia yow nit ki jaamu ma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom waaye nag àdduna am nga ci cër mën liggéey exploiter suuf si exploiter jaww ji boo ci mënee tàggat avion nga def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naaw ay distance yu sori sëf mbooloo mu bari ak i bagage def ko duggal ci géej gi génneel njëriñ yi ci nekk daggal garab yi defar ci bato wala gaal teg ko ci ndox mi dox ci sa yitte loolu ak jagle la gu yàlla defal nit waaye defalu ko malaaka loola tax mu préparé nit pour mu ñëw dund ci kaw planète bi ñuy tuddee terre gis ngeen itam ne bi yàlla fale maam Adam ci mu war a nekk xalifam fii ci kaw suuf lu jiitu muy wàcc am na wax yu mu wax ak moom te moo di lépp lu baax digal na ko ko lépp lépp lu bon tere na ko ko teel na ko joxoñ itam noonam bu bon boobu di iblis mu won ko ne ko sa noon la moytu ko wax na ko itam ne ko kër gi nga génn du man yàlla maa la fi génne waaye sabab bi moo di mooy gooma mooy te mooy nga dara waralu ko lu dul da nga topp ndigalu iblis bàyyi sama ndigal looloo tax ma génne la njëggal naa la nag ndax tuub nga tey nag maa ngi lay yebal ci barab boo xamante ni barabu coono la bala nga fa jariñu fokk nga ñaq danga sonn waaye nag soo góor góorloo topp samay ndigal boo dellusee fii danaa la dëkkalaat ci aljanna nga delluwaat ci peex ma nga nekkoon ak jàmm ja nga nekkoon su fekkente ni nag déggaloo ma lu dul dag ma dug mooyu topp sa noon boobu di iblis ak njabootam su boobaa nag boo dellusee am na beneen kër bu ma préparé tuddee ko safara falaa lay dugal yaag sa njaboot ñu ci ànd ak iblis ñu gis ne ci waxtaan wi weesu yàlla wane na melokaanu ëllëg ñay dugg safara wane na melokaanu ëllëg ñay dugg aljanna teel ko yëgal suñu maam aadam alayhi salaam pour mu bàyyi ko xel ngir itam ëllëg benn doomu Adama bañ a am lay ci kaw yàlla ndax yàlla wàccoo na ak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nekk yebal na ay jàngalekat oustaz yaa ngi ci koñ rajo yaa ngi wax ñu mën a bind ñu ngi bind walla ngi waar ci dee di waar ci yenn xew-xew yi ñépp pour jajj nit wan ko ne ko kër gi du këru dëkkuwaay pont la rekk bu nit ki di jéggi wuti àllaaxira wante ci waxtaan wi weesu gis ngeen ci waxtaan wi weesu gis ngeen am na waxtaan wu doxoon diggante waa aljanna ak waa safara ak waa laaraaf coono bu rëy waa safara toggoon nañu ko ak mbugal mu metti mbégte mu rëy waa waa aljanna nekkee nañu ko ak péex ak xéewal yu rëy ak i bànneex waa laaraaf ñoom fa nekk climat ba ñu yor climat àdduna la ndax mag ñi dañu euh, misaal aljanna ak safara ak laaraaf ci climatiseur ndax baabun baatinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi aladab ñoom dañ ko misaal ci climatiseur dañu wax ni kanam ga péex rekk a ca nekk biir ba péex rekk a ca nekk soo taxawee ngelaw lu sedd moo lay upp ngelaw loo xam ne bu la uppee soo sàgganul danga nelaw ndax péex gannaaw ga tàngoor wu mettee fay génn ba boo fa taxawee da nga yëg ne sa yaram dana tàng kon baabun baatinuhu fihi rahma mooy congélateur li ko féete biir wa zahiruhu min qibali al azab mooy la ko féete gannaaw foofu mbugal kese fa nekk kaw congélateur bi nag fala waa laaraaf taxaw moo tax nag ñu mën a sëpp waa aljanna sëpp waa safara di leen gis nañu nekkee wante waa laaraaf gis ngeen ne daan nañu bég ci jàkkaarloo gi ñu jàkkaarlook waa aljanna ci xéewal gi leen yàlla defal ñoom ndax fitna ji ñu nekkee xam nga léeg-léeg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw rey bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy rey nit ki da gis ni ngay tafi say bët noonu itam la safara buñ leen di dóor dóor yu metti wala ñu leen di lakk-lakk yu metti waa laaraaf bu ci seen bët tegoo noonu lañuy ñuy dummoyoo waa laaraaf keroog ba yàlla di jële ci seen barab boobu di leen dugal al aljanna keroog waa safara seen xol seen xol jooy na ndax xemmeem nañu dugg aljanna ànd ak waa laaraaf waaye duñ ca dugg ba mukk ndax xaalidina fiiha foofu nag waa safara yi woo nañu waa laaraaf woo nañu waa al aljanna moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu nnaari asxaab aljanna an afiidu alayna min almaai أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمها على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون yàlla nee na keroog ba waa laaraaf di dugg aljanna nee na waa safara jooy nanu di woo waa aljanna naan leen amuleen fi ndox mu sedd mu ngeen ñu may ñu naan ndax dañoo mar amuleen fi lekk gu tey te neex ngeen yónnee ñu ko ndax dañu xiif waaw su ko defee waa aljanna yi di wax naan leen am na fi de waaye nag sañuñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen wax nanu ne foofu léeg-léeg da gis ci safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon nañ ci àdduna mu ne ko ee eh, diw yow de xamante woon nañu démb ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da gis kuy jottali nag wax bi naan ko ee diw doo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan su ko defee nag danaan ah sañuma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal lañuy sax ba faw moo tax sañuma ko kon nga gis ne ndeke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee ñii di gis xéewal ñii di gis mbugal yal nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna yal nañu yàlla musal ci musibam waa safara mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam aadam léegi nag wàcce na ko nee na ko demal wàccoo na ak yow li ma siñanteeg yow danaa ko def soo respecté ma respecté léegi nag wàccee na suñu maam Adam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde foofu leen ko wàccee ñu wàccee suñu maam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca makkatul mukarrama kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale këlee nga Inde kële nekk ci jidd mais nag ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie ñu ni Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak kon yàlla taqale na leen bi ñu wàccee suñu maam aadam alayhi salaam wàcce suñu maam xawa wàcce ibliis yàlla namm na ci suñu maam aadam pour mu gisanteeg suñu maam xawa keroog ba ko yàlla nammee la yebal suñu maam adam ne ko dama bëgg yebal la ci benn barab moo tax mu ne awxa allahu taala ila adam awxa allahu taala ila aadama anna li xaraman bi xiyaali arshi fatihi fa tuf bihi kama yutaafu xawla arshi wa salli cindahu kama yusalla cinda arshi fa hunaka astajibu ducaak فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيض الله له malakan yurshiduhu ñu ne yàlla déy na waxyu na suñu maam aadam ne ko am naa benn barab barab bu sell barab boobu nag dama la fa bëgg a yebal soo demee nga wër barab ba ndax barab bu sell la soo demee na nga julli barab boobu loo fa ñaan yàlla loo ma fa ñaan man yàlla dana ko nangu ndeke boobu màkka la koy junj ca kaabatullahi almusharrafa suñu maam Adam daal di départ jóge Inde wala jëm nag màkk yàlla boole kook benn malaaka boo xam ne moo koy wan yoon bi moo tax ñu ne bi nga xamante ni suñu maam Adam alayhi salaam ñëw na makka ba agsi arafaat fekkoon na boobu itam sayyidatuna xawaa doon na ko wër kenn ku ci nekk soxla nga sa moroom di wër sa moroom ñu wërante diir bu yàgg gisante wuñu yàlla dogal nag bi suñu maam adam ñëwee makka mu ngi dajeeg suñu maam xawa ci montagne bi ñuy tuddee arafaat te ku dem Makka dem taxawi fa ndax dafa bokk ci ponki aji wax nañu ne ba ñu dajee foofu kenn ku ci nekk xàmme na sa moroom waaye suñu maam aadam moo am oyefu wax ak suñu maam Xawaa ne ko ndax xam nga ma gannaaw ba mu ko nuyoo mu ne ko ndax xam nga ma soxna si mel ni ku ko xamul waaw li ñuy wax naan jigéen léeg-léeg mu xawaam tuuti rekk rëy waaw wante waxtaan wi yàggul suñu maam xawaa ne ko aha kay xam naa la yow yaa di Adam yow laa nekkaloon ci aljanna loola tax ñu ne barab ba moo tax ñu tuddee ko arafat ndax arafa ci arab moo di xam na moo tax ñu tuddee ko arafat mooy barab bi suñu maam aadam daje suñu maam xawa gannaaw ba leen yàlla wàccee fi ci kaw àdduna moo tax Makka barab boo fa taxaw rek am na lu mu symboliser ci lislaam foofu nag lañu xamante yàlla jéggal na leen nag seen bakkaar ñu commencé nag ànd ànduk jëkkër ak jabar ànduk itam ñaari responsable yoo xamante ni yàlla dafa teg ci ñoom xilaafa bu rëy moo di ñu donn ko fii ci kaw suuf nekkal ko fi moo tax jële nañ ci sëriñ bu ñuy wax wahb mu ne aadam biñ ko wàccee fii ci kaw suuf mu gis suuf si yaatu lool te gisul ci kaw suuf jeneen jëmm ju ñuy tudd nit ku dul moom ak xawa foofu nag la waxee ne ya rab amma li ardika hadihi min aabidin yusabbixuk wa yaxmiduk wa yuqaddisuk mu yow yàlla sa suuf si yaatu na waaye gisuma fi benn jàmm bu lay sabal wala mu lay sant walla bu lay màggal bu dul man yàlla ne ko sa ajalu fiha min waladika man yusabbixuni wa yaxmiduni wa yuqaddisuni wa sa ajalu fiha buyutan turfacu bi dikri wa yusabbixu fiha xalqi wa yazkuru fiha ismi wa sa ajalu min waladika ya adam man yacbuduni xaqa cibaadati wa sa ajalu min tilka al buyuti baytan axussuhu bi karamati mu ne ko adam yow rek yaa fi nekk actuellement di ma jàmm jamono bi yow rek yaa fi nekk yaa ak sa soxna di ma jàmm wante nag ëllëg say sët am na ci ñoo xamante ni danañu ma jaamu comme ni nga may jaamu danañu may sant di ma màggal adduna bi itam danaa fi wut ay jàkka yoo xamante ni say sët ñoo ko fi tabaxi jàkka yooyu dañu ko tabax lu dul nam ma tudd ca biir jàkka ya di fa jàngal quran di fa tudd sama tuur di fa julli di ma fa sabbal di ma fa sant di ma fa màggal mu ne ko itam sa sët yi dana ci am ñoo xamante ni dana ñu ma jaamu dëgg dëgg jàmm nañ ma war a jàmmoon noonu leen may jaamu duñ ma bokkaale kenn duñ ma yemale kenn mu ne ko itam wut naa fi néeg boo xamante ni mooy néeg bi ma njëkk a teg ci kaw suuf si mu di kaaba gu tedd néeg boobu nag man yàlla maa ko jago néeg la boo xamante ni ku ko màggal man nga màggal man yàlla yoo xamante ni lu ñu sori sori sori danañu ñëw ba ca barab boobu def joxe seen farata boobu ñuy tuddee aj léeg itam ñu ñëw def li ñuy tuddee umra foofu nag la wax ni suñu maam aadama alayhi salaam ba mu ñëwee màkk ba taxaw arafaat wax nañu ne yàlla dafa jël loxoom bu tedd ba bu fekkonte ne loxo yey na ci moom daldi koy raay ci digg ginnaawu suñu maam adam alayhi salaam lépp lu mu war a mën a lépp lu mu war a am ci sët lépp lu mu war a am ci sët ba yàlla raaye digg ginnaawu suñu maam aadam lépp lu war a judd ñu lay tuddee doomu aadama nga bokk ci sëtu maam aadama yi keroog ba yàlla raayee digg gannaawu maam aadam taxaw nga nekk jëmm présenté wu ci sa kanamu borom ñépp taxaw aadama di xool ay sëtam ay doomam ba ci sëtam bi mujj mu gis ñépp taxaw dama taxaw yonent yeeg nit ñeeg ñi gëm ñi gëmul ñépp taxaw ci kanamu yàlla dama gis njabootam te boobu kenn juddoogul waaye yàlla la soob mu doxale noonu keroog wax nanu ne yàlla laaj na nit ñépp ne leen alastu bi rabbikum yéen nit ñi taxaw aadama yàgg say sët maa ngi leen di laaj alastu bi rabbukum xanaa man duma seen boroom foofu ruux yépp dañu tontu ne bala ñoom ñépp dañ ne ko aha kay yow rekk yaay suñu boroom yow rekk yaay suñu boroom bokkoo ñoo kenn yàlla ne ah yéen a ko wax de ñépp ne waaw mu ne ah shahid naa antaxulu taqulu yawma inna kunna an hada ghafilin yàlla ne wax ngeen ko de waaye nag maa leen di jégal ne yowmal xiyaam dana am ñoo xamante ni daneen ma wax ne ma yàlla kat ñoo ko waxoon waaye bañ demee àdduna dañ koo fàtte moo tax kenn ku nekk ci ñun jataay boobu ca Arafat ba yàlla posé question ba bokkoon nga ci ñi wax aha waaye tey jii koo laaj mu ne loolu fàtte na ko moo tax yàlla nag ne ñun kat seede nañu ne ëllëg da ngeen wax ne dañ ko fàtte woon waaye yàlla fàtte fàttaliwaat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajoon nañu ñu ne axakay axakay boobu nag bu ñu ñëw fii àdduna nag fàtte ko ba jël matériel jënde ko yàlla wala ñu jël alalu àdduna poñetu àdduna mi jënde ko yàlla wala ñu jël leneen di ko jënde yàlla yàlla mosul dañ di nekk yàlla te moom rekk mooy yàlla te ñun ñoo d'accordoon ci ne moom mooy yàlla ci arafaat keroog ba mu raayee dëgg digg gannaawu suñu maam Adam ñun ñëpp génn nañu taxaw seede loolu moo tax wax nañu ne suñu maam Adam alayhi salaam yent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko nettali ndax laajoon nañu Umar ibnul Xataab radiyallahu anhu maana aaya bi ne ko noo ko déggee mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allaha xalaqa adam wa masaxa dahrahu fastaxraja minhu duriyatan wa qaala xalaqtu haulaai liljanna wa biamali ahli ljanna yacmaluun summa masaxa dahrahu fastaxraja duriyatan wa qaala xalaqtu haulaai linnaar wa biamali ahli nnaar yacmaluun fa qaala rajulun ya rasulallah fa fi ma al amal fa qaala inna allaha ida xalaqa al abda lil janna istaamalahu bi amali ahli al janna fa yadxulu al janna wa ida xalaqa al abda lin naar istaamalahu bi amali ahli al naar xatta yamuuta ala dalik fa huwa ahlun lin naar Omar ibn al Xataab nee na déggoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bi nga xamante ni yàlla bind na maam Adam dafa ray digg gannaaw ga nee na génnee ci mbooloom nit mu bari ci ay sëtam daldi wax ne ñii ñépp de man yàlla ci sama coobare laa leen bindee te ëllëg fas yéene laa fas yéene naa leen a dugal àjjana kon ñii ñépp ay nitu àjjana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nar a dugg àjjana la loolu laa dogal dogal naa ko ba pare jeex na mu raayaat dikk gannaaw maam Adam beneen mbooloo mu am solo génne ci mu toll ni mbooloo mële wala mopp ko sax ñooñ ñëpp yàlla na ñii de maa leen bind waaye safara tax ma bind leen fokk dugg safara moo tax ñoom jëfi ku naru dugg safara la ñuy def keroog ba yonent bi sallallahu alayhi waxee wax bi am na benn waay bu ko laaj waa ji bi mu laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko su fekkee mbir mi noonu la demee kay kon jaamu yàlla gi ñuy def inutile yonent bi ne ne leen kay jaamu leen seen boroom képp koo xamante ni xolam woyof na ci mu jaamu yàlla di ko topp di topp ay ndigalam loolu mooy wone ne moom waa aljanna la képp koo xamante ni nag xolam diis na ci jàmm yàlla su julli jotee mu diis yées lu bañ a julli ji du taxoo njàpp lu yàlla tere moom la gën a mën a def mu ne kooku dey wane ne foo ci groupe bële la bokk groupe waa safara la waaw moo tax nag mu ne yàlla nee na fariqan hada wa fariqan xaqa alayhim ad-dalala yàlla nee na am na kuréel boo xam ne ci njub rek lañu teg seen tànk ñooñu fokk ñu dugg àjjana wa fariqan am na beneen kuréel boo xam ne xaqa alayhim ad-dalaala fokk ñu dugg safara ñu ne ko lu tax mu ne ndax seeni tànk dañu ko jël teg ko ci tànku cheytaane innahum ittaxadu shayatina awliyaa min dunillah wa yaxsabuuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nekk di laaj ndax jaamu yàlla nga war a def wala waruloo jaamu yàlla déedéet yow kay seetal rek fa sa xol tàggat tàggatu su fekkee sa xol tàggatu na ci njub nga xam ne kon waa aljana la waa aljana nga bu fekkee sa xol nag dafa tàggatu ci mooy akuk dëng nga xam ne kon waa safara nga noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam firee xadis bi te mu rafet nag te itam neex a dégg ca ka nga xamante ni njubug yàllaa ngi ci yow moo tax ñu ne wax ba sax moo ko nettali mu ne yàlla wax yu na maam aadam gannaaw ba mu tuubee ne ko danaa def ci yow danaa la jox xam-xam yépp ci ñeenti baat ne ko benn bi man yàlla maa ko moom bi ci des yow yaa ko moom beneen bi ci des maak yow ñoo ko seq beneen bi ci des yàgg nit ñee ko seq mu ne ko bi nga xamante ni man yàlla maa ko moom moo di maa ngi lay digal nga jaamuma te bu ma bokkaale kenn loolu maa ko moom jaamuma man rekk te bu ma bokkaale kenn yàlla bokkaale rekk la bañ mu ne ko beneen bi ci des itam mooy bi nga xamante ni yow yaa ko moom maa ngi lay yëgal ne soo ma jaamoo danaa la fay fay ga nag yow yaa koy moom sa xéewal la sama yoon nekku ci mu ne ko bi bi nekk sama digganteek yow moo di ñaan moo dox sama digganteek yow soo ma ñaanee rek ma may la kon nag bul dañ waxtu wu nekk jamono ju nekk di ma ñaan di ma fàttaliku ma lay may mu ne ko bi nga xamante ni nag moo dox sa digganteeg nit ñi moo di li nga bëggal sa bopp bëggal ko nit ñi bul nekk nit ku goree di nit koo xamante ni ak mbaax sa bopp rek nga ko yéene waaye yéene woo ko ñu ci des déedéet nit ku mel noonu sëg ngëm yàlla des na mu ne ko kon nag li dox sa digganteek nit ñi mooy lépp lu baax loo yéene sa bopp yéene ko itam say moroom yi jullit foofu nag la ko maam Adam waxee ne ko yow sama boroom man de léeg-léeg danaa sàggan di wut wërsëg di wut àdduna rek ba léeg-léeg sax danaa fàtte di la jaamu ci yenn waxtu yi léeg-léeg sax ma fàtt julli léeg-léeg waxtu wi ñëw ba romb ma fàtte ko léeg-léeg sama xel du nekk ci yow yàlla ne ko maa ngi lay dénk foo déggatee séq gu sab na sa xel dem ci man ndax séq maa ko bind wàccee ko ci kaw suuf bu déggee malaaka yi di ma sabbal ci kaw fokk mu sab moom itam pour sabbal ma waaw kon nga dégg ne ndeke ganaar yi sab dañoo dégg coowul malaaka yi ci kaw nañuy sabbaale seen boroom ñoom itam ñuy sabbaal yàlla ngir toppandoo malaaka yooyu mu ne kon nag yow nit ganaar a ngi lay fàttali pour nga fàttaliku sa boroom di ko sabbaal kon Adam bis boo déggatee ganaar gu sab na sa xel dem ci man waaw moo tax ñu ne ganaar yi njëkk noddu njël ganaar yi njëkk a njël pour lan pour fàttali jullit ñi ne nelaw yi neex na waaye nanu ko dog nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamante ni budul woon ak moom duñu tali nelaw kon suñu maam Adama alayhi salaam wax nan ne la mu njëkk yar ci këram ci jur moo di ganaar la taxoon du dara lu dul ak jaamu yàlla rekk a taxoon mu wut seq gu rëy nag bàyyi ko ci këram waxtu wu jot mu noddal ko sabal ko moo tax yàlla ba tey déy na suñu maam Adam ne ko maa lay wàccee ci ko suuf waaye suuf si ma lay wàcce maa ngi lay yëgal ne kër la goo xamante ni maa ngi ko tabaxee ci ñetti fondement ci ñeenti fondement mu ne ko fondement bu njëkk bi moo di lépp lu jokk danaa ko dagg dañ fi nekk ak sa wayjur jékki-jékki yàlla jël sa wayjur bàyyi la fi léeg-léeg nga nekk ak sa doom yàlla jékki-jékki jël sa doom bàyyi la fi wala nga nekk fekk sa xarit yàlla jékki-jékki jël sa xarit bàyyi la fi kon yàlla wax na suñu maam Adam ne ko kërug tàqalikoo la de ndax dana jékki-jékki rek fekk ñu daan ànd ma am ñu ma jël tàqale leen waaw tàqale soppeek soppeek mu ne ko beneen bi ci des itam li ngeen di dajale ci alal dana xëy nangu ko ci seeni loxo mu nekkaat ci yeneen loxo parce que dañu wax ne eh, alal ji jinit ji di nit ki di dajale am am la tudd am am mooy ay nit a ko joxlante ba mu agsi ci yow ëllëg nag dana jóge ci yow toxu demaat ci yeneen loxo kon yàlla nee na bi ko ñaareel ci fondement yi moo di lu ngeen fi dajale dana xëy nangu ko mu teguwaat ci yeneen i loxo mu ne bu ñetteel bi moo di lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xëy ràppal tabax ya waaw ba mel ni tabax ya mësuta bees mësuta rafet gis nga tabax yi fi nekkoon ci jamonoy général de Gaulle tey jii kenn tegatu ko bët te toll na jamono yoo xamante ni moo doon tabax yi rafet moo doon tabax yi ñépp bëgg dëkk léegi nag am na yeneen tabax yu bees yu génn tax na fàtte nanu yooyu kon li yàlla wax ne lépp lu ngeen tabax danaa ko ràppal wax na dëgg tabax yi fi bees tey ëllëg dana ràppi kon jarul xulo jarul jaay jaay sa diine jarul itam jaay sa ngor mu ne ko beneen bi ci des itam doom yi ma leen jox ngeen ci puuk réew tekki seeni bakkan doom yi ngeen jur yépp dana xëy faat leen jël seeni ruux ñu suul leen ci suuf moo tax waykat ba wax ne lidu lil mawt wabnu lil xaraabi wa kullukumu jasiru ila dahabi jural leen de tabaxal leen rab yéen ñëpp na xam ne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defee nag yàlla rek moom moo fi des ñëppay dem waaw kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dul jalali wal ikram moo tax jële neen ci ibnu mubaarak mu jële ci xaalid xaalid jële ci xamid ibnu hilaal mu ne yàlla sit na ci julli nit bu dee julli jël ñaari loxoom jàpp ko ci ndiggam li ñuy tuddee jatu ñu ne ko lu tax mu ne ndax bi yàlla di wàccee iblis ci kaw suuf dafa jëloon ñaari loxoom jàpp ko ci ndiggam kon boo dee julli nag bul jël sa loxo jàpp ko ci sa ndigg kon day mel ni yaa ngi toppandoo iblis te yàlla bëggul nit niroog dara iblis moo tax nettali leen jële ci xaamid mu jële ci thabit ak xamid mu jële ci abdullah ibnu ubayd mu jële ci umayr mu ni iblis bi nga xamante ni iblis yàlla wàcce na ko fii ci kaw suuf yàlla waxtaan nag iblis ne ko yaa rab axrajtani min aljanna min ajli aadam wa inni la astatiicuhu illa bi sultaanik qaala allahu taala li iblis fa anta musallatun alay ñu ne iblis dafa wax yàlla ne ko yow sama borom yow yaa ma génne aljanna ngir aadama mii te itam Adama sama noon la te bëgg naa koo jekku te itam mënuma koo jekku lu dul ne yow yaa ma may doole kon nag maa ngi lay ñaan doole ci Adama yàlla ne ko jox naa la doole ci moom jox naa la bunt ndax def naa ci moom lu ñuy tuddee bakkan soo ko bëggee moom jaare jaare ko ci bakkanam Iblis ne ko yaa rabbi nii yow sama borom dolli ma ndax loolu nga ma may ci Adama rek doyuma yàlla ne ko adama dana dana am doom dana am ay sët yow itam danga am doom am ay sët bu ko defee moom ay doomam danañu ko jàppale yow itam say doom danañu la jàppale iblis ne ko yaa rabbi zidni yow sama borom dolli ma ndax li ma jox doyul yàlla ne ko man yàlla su ma doon dëkk ci nit ci dënnam ci ci ci ci xolam lay dëkk kon nag kër googu muy dëkk ci nit jox naa la pouvoir jox naa la sañ-sañu yow itam nga dëkk fa bu la neexee yow itam nga dëkk ci xolu nit na ma fay dëkke waaw am na ñoo xamante ni seen xol yàlla rek a fa nekk waaye am na ñoo xam ne seen xol iblis rekk a fa nekk moo fa dëkk mu ne ko itam jox naa la doole may naa la ngay daw ci nit ki di dugg nit ki di daw ci moom ni deretam di dawe ci moom ni deretam di dawe ci nit waaw moo tax léeg nga gis seytaane yi di dugg nit seytaane di dugg nit waaw léeg nga gis nit ku daanu te àndut ak sagoom seytaane ko seytaane ko dugg waaw moom la alquran di wax ni kii lekk riba mu ngi mel ni ki nga xamante ni yataxabatuhu seytaanu min al mas waaw kii lekk riba nee na mu ngi mel ni ki nga xamante ni jinne def ko sàdd na muy daanoo na muy fëlamoo ci suuf si ngir ñàkk sago nee na itam kii dunde riba noonu la yàlla di nëxale dundam ba dundam du mën a tey mukk dundam du mën a ànd ak sago mukk kon ndiki seytaane day daw ci nit nit ret di dawe ci nit waaw wax nañ ne sayyidatuna Fatima ñëwoon na seet seet si baayam mu di yonent bi sallallahu bis bi mu ñëwee seet ko fekk yonent bi sallallahu alayhi waxtaan ak moom ba pare di ko gunge bi ñu ñëwee ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw romb yonent bi sallallahu alayhi daal di leen dab fekk guddi la woon mu daal di leen di dab woo leen ba ñu ñëw fekk boobu sayyidatuna Fatima mu ngi muuru mu daal di dindi muuraay bi ba ñu gis Fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne leen kii de Fatima la sama doom la ñu ne ko ah déedéet sang bi yow kay e, kenn ñaawul njort ci yow ñun kay e, xam nga ne xëy na keneen kay la ñuy ñaaw njort ci moom waaye yow fekk la nga taxaw ak jigéen du tax ñu ñaaw njort ci yow mu ne déedéet e, seytaane dafay daw ci nit ni deret di dawi ci nit su ma leen bàyyi woon noonu ngeen dem ëllëg mën ngeen a wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa gis neen mu taxaw ak jigéen ci buntu këram te loolu moom seen safara xaj na ci kon seytaane dana daw ci nit ni deret di dawe ci nit yàlla moo ko ko may yàlla ne ko itam may naa la nga dugg ci seen alal yi léeg-léeg yàlla jox nit alal mu rëy lool di ca jaayuk daraja dog ay mbokkam jaay maanaa léeg-léeg nga am say doom say doom yaradiku ba féewale ak say mbokk yooyu yëpp danay am su ko defee nag dangay fexe ba génnee seytaane ci sa programme génne ko ci say doom génne ko ci say alal mu ne ko nag yow sama boroom xiir nga ma ci aadam kon danaa ci def la ma mën aadama nag ne yàlla man kat mënuma mukk daw seytaane lu dul doole jamay may pour ma daw ko doole jooju ci yow lay jóge yàlla ne ko danaa la jox doole yow itam yow aadam doole ji ma lay jox moo di ne moom iblis am na pouvoir ci yow wante maa ngi lay yëgal ne doom jur jur danaa ko booleeg malaaka yu koy wattu ba seytaane du ko mënal dara waaye nag na góorgóorlu ci wàllu làpp lu mu mën ndax malaaka yi dañu bëgg nit ko laab te dañu koy jege di ko protéger su fekkente ne nag nit ki laabul sa doom ji laabul malaaka yi duñ ko jege bu ko defee nag seytaane yi ñëw dëkk ak moom ne ko kon nag dañuy góor góorlu ci wàllu laab ndax danaa leen booleek malaaka yu leen di wat aadama ne ko yàlla dolli ma mu ne ko benn bu baax boo def danaa ko def fukk te léeg-léeg sax ma dolli fukk ya benn bu bon boo def benn bu bon rek laa koy jàppe te léeg sax ma baal la ko te doo ko yëg adama ne ko dolli ma mu ne ko yaa ibadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru dunuba jamia yàlla ne ko yow adama ñi sàggan ci sa njaboot ba toggoo bàkkaar yu bari bu ñu ñaaw njottu mukk ci man ci ne duma leen jéggal man yàlla xajoo naa lépp luñ mën a def ci bàkkaar mën naa leen ko jéggal maam Adama ne ko dolli ma mu ne ko jox naa leen tuub te dootuma ko nangu ci yéen feek seen ruux a ngi ànd ak yéen mu ne ko yow sama borom dolli ma yàlla ne ko léeg-léeg sax ma jéggal nit ki te duma baalu sama yoon nekku ci maa ko def ngir sama yërmande suñu maam Adam ne ko ah, borom bi loolu nag doy na ma sëkk comme ngan naay pour ma mën a jàkkaarloog Iblis mbokk kon incha allahu ci ajjuma ji di ñëw incha allah ci leen fas yéene continuer waxtaan yi nga xam ne dox na ci diggante iblis mbokki jullit yi mbokki déglukat yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw dellusi na ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq ànd ak seen xarit Abdullahi Thioub ci waxtaan wi weesu gis neen waxtaan yi doxoon diggante iblis laanatullahi alayhi ak uh, yàlla mi nga xamante ni moo ko rëbb génne ko këram ak waxtaan wi dox ci diggante suñu maam Adam alayhi salaam ak yàlla ci ndimbal gu nga xam ne sàkku na ko ci yàlla ngir mën a mucc ci pexem seytaane ginnaaw bi leen yàlla wàccee fii ci kaw suuf wàcce suñu maam Adam ca réew mu ñuy wax Inde wàcce suñu maam Xawa ci Jadda ca ardu Xijaaz wàccee Iblis laanatullahi alayhi ca waaye gis nañ ne waxtaan woowu daggagul ba léegi ndax iblis laanatullahi alayhi wax na yàlla ne ko yaa rab laantani wa axrajtani min aljanna wa jacaltani shaytaanan rajiman madmuuma wa jacaltani shaytaanan rajiman mazmuuman madxuura wa bacadta fi bani aadama arrusula wa anzalta calayhim alkutub fama rusuli qaala alkahana qaala fama kutubi qaala alwashm qaala fama xadiisi qaala xadiisuka alkadib qaala fama qiraati qaala qiraatuka alshaar qaala fama fama muaddini qaala muazzinuka almidmaar qaala fama masjidi qaala masjiduka alsuuq qaala fama bayti qaala baytuka alxamaam qaala fama taami qaala tacaamuka maa lam maa lam yudkar ismu llahi alayh qaala fa maa sharaabi qaala sharaabuka kullu muskirin qaala fa maa masayidi qaala masayiduka nisa ñu ne Iblis laanatullahi alayhi mu ngi jàkkaarloog yàlla di ko laaj ne ko yow sama boroom yow rëbb nga ma aljanna def ma itam ma di seytaane nga rëbb xas ma ayibal ma wante gis naa fi nga teg doomu aadama gis naa fi nga teg nit ndax yow bind nga aadama ci melokaan wu rafet ba pare itam ci njabootam am nga ay nit ñu baax ñu di ay yonent wut nga itam ay wëliyu ñuy ay nit ñu baax ñoo xamante ni itam dañuy waar nit ñi di leen teg ci njub nga wàcce ci ñoom ay téere ndax wàcce nga téere bu ñuy wax tawreet wàccee nga téere bu ñuy wax injil ak zabuur te téere bi ci gën a mag te ub téere yooyu yépp lépp daje ci biir mu di alquran nga jox ko sa yonent boobu ñuy wax muhammad waaw man nag wutal ma ay yonent wutal ma téere wutal ma xadis yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jàng wutal ma jàkk ndax yow doomu aadama yi am na nu jàkk ju ñu jullee am na nu ay noddukat wutal ma néeg itam wutal ma ñam wu may lekk dégg wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e, fital goo xamante ni mën naa ci rëbb yàlla ne ko waaw man kay li ma defal doomu aadama yépp mën naa la ko defal mu ne ko kon nag ñen ñooy samay yonent yàlla ne ko sa yonent say yonent yow iblis moo di jibarkat yi jibarkat yi ñooy say yonent ni ma yónnee ay yonent mu di yonent yàlla Muusa ak Isa ak Daawuda ak Suleymaan ak Ibrahima ak Yaaqub ak Isxaq yonent yu baax yooyu nga xam ne dama leen a yebal ci nit ñi ñooñu ñooy samay niti bopp maa leen tànnal sama bopp wante yow nag say niti bopp yi nga tànnal say bopp moo di jibarkat yi bépp jibarkat rek yonent iblis nga mu ne ko waaw sama téere lan la mu ne ko sa téere moo di ñiy soppi bindu yàlla bi te mooy jamukat yeeg xeesalkat yi mu ne ko waaw sama xadis lan la mu ne ko sa sa xadis moo di fen waaw fen mooy sa waxtaan foo fekk nitu iblis waxtaanam yépp fen la moo taxoon yonent bi ne ayatul munaafiqi thalathatun maanaam ni ngay xàmmee naa feq ci ñett nga koy xàmmee dafay fausser rendez bu bu giñee dafay fen su la diggee du la jox kon loolu day wane ne li ko yàlla wax ne ko kon sa xadis mooy fen dëgg la mu ne ko waaw sama waqaf lan la mu ne ko sa waqaf moo di way mu ne ko sama jàkk la mu ne ko sa jàkk moo di marché waaw marché yi ñooy jàkk yi iblis yi waaw mu ne ko waaw samay noddukat ñan lanu mu ne ko musique mooy sa mooy sa nodd moo tax boo demee ci jàkkoy iblis mu di marché yi euh, noddukat ya bari nañ fa ndax ñaari barab boo taxaw ñu ngay teg musique musique ba ubbi euh, maytaphone bi muy coow ca kaw lu tax ndax jàkkoy iblis la musique moo fay nodd loolu la ko yàlla wax mu ne ko waaw sama kër gi ma war a dëkk ban kër la comme yow ne nga wa annal masajida lillahi jàkk jàkka yi yow yaa ko moom mooy sa kër mooy sa néeg juma néegu yàlla kon man iblis lan mooy sama néeg mu ne ko duus yi yow barabu sobe yi rek moom mooy sa néeg kon bépp néeg bu nga xamante ni dañu fay garder sobe moo xam e, sobe mëniyu la wala sobe saw la wala sobe la boo xamante ni rek ñu ngi ko garder ci néeg ba dindi ko néeg boobu iblis dafay dëkk comme na muy dëkkee ci douche yi kon nag nit ñi di góorgóorlu di fexe ba seen néeg yi di set bañ a am sobe ndax bu fekkee setul sobe nga fa day nekk barabu iblis ndax bépp barab boo xam ne dafa am waaw moo tax boo tegee sa añ ñëpp dugal seen loxo te waxuñu bismillah jàppal ne ñam woowu ka cay lekk mook iblis a bokk ak ñam bokk mook wa ba ñam wa jeex mu ne ko waaw kon luy sama naan mu ne ko lépp luy màndal nit ki lépp loo xam ne bu ko doomu aadama jëfandikoo ci wàllu naan dana e, tàqali ko sagoom te daf koy mandil mu ne ko loolu moom mooy san naan kon drogue yeeg sàngara yeeg yàmbaay yeeg yépp e, naanu iblis la moo tax ñi koy jëfandikoo itam njabootu iblis lañu mu kon e, bëgg naa itam am arme boo xamante ni moom lay rëbbe pour mën a faj sama yenn soxla mu ne ko jox naa la jigéen muy sa arme waaw ku bëgg a daaneel rek mën nga koo daaneel ci jigéen moo tax nitu yàlla yu bari e, Iblis fexe na ba daaneel leen ci jigéen ndax mooy rëbbukaayam bi gën a mag moo tax kon yàlla jox na Iblis yii mu ko jox te benn bu ci nekk itam jara moytu ndax Iblis ba suñu maam aadama wàccee fii ci kaw suuf daf ne ñeenti mbër laa jàmmaarloo war a bëreeg ñoom te fokk ma daan leen ub làmb ji wala ñu daan mu ub làmb ji suñu ma daanee su ma suñ ma daanee ëllëg safara laa jëm su ma leen daanee ëllëg aljana laa jëm yàlla nag taxaw na pour jàppale ma la mu mën loola tax ba mu wàccee daf ni iblisu wa dunia wa nafsi wal hawa kayfal xalaas fa kulluhum aadaa'i mu ne iblis sama noon la adduna sama noon la sama bakkan sama noon la sama bànneexu bakkan sama noon la mu ne ñeenti mbër a gi nii ma sëkk mbër taxaw fas yéene ma soto pour daaneel ma mu ne kon nag maa ngi góor góorgóorlu wéer sama gannaaw ci yàlla pour fas yéene bëreeg moom mu nekk bëri boo xamante ni nit ki daf koy bëreeg seytaane ba ba yàlla di jël ruuxam wante nag bu ñu delloo gannaaw ci waxtaan wi weesu dinañ gis ne yàlla jox nañu ay moyens yu mag yoo xamante ni danañ mën a mucc ci seytaane ba tax na kon moom iblis laanatullahi alayhi wax ne ni suleymaan alayhi salaam laajoon na iblis bis ne ko ayul acmaali axabu ilayk wa abgadu ila allahi taala qaal lawla manzilatuka cind allahi taala maa axbartuka inni lastu aclamu cheyan axabu ilaya wa abgad ila allahi taala min istignaai rajuli bi rajul wal maratu bil mara mu ne ko Souleymane dafa laaj Iblis daf ko gis bis ndax Iblis léeg-léeg mu feeñu nit dafa feeñu Seydina Souleymane alayhi salaam Souleymane daal di koy laaj ni ko waaw yëw Iblis eh, ban jëf nga gën a bëgg ak ban jëf la yàlla gën a bañ Iblis ni ko Souleymane man nag dox di wax samay secret. du sama mbir man nag samay secret dama koy nëbb ndax li ma bëgg moo di ëllëg su may dugg safara dugg faak ñu mel ni yéen kon nag samay secret waruma koo génne wante nag danaa la wax ne la e, am na daraja ju yàlla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la loo xamante ni ci nguur dootu ko mayeeti keneen mu ne ko bu dul woon nag dara ju jooju la yàlla may kon lii duma la ko wax ba mukk waaye maa lay yëgal ne man ibliis li ma gën a bëgg te yàlla gën koo bañ moo di góor guy sëy ak moroomu góoram ak jigéen juy sëy ak moroomu jigéenam te mbokk yi gis ngeen ne yàqu-yàqu boobu moo siiw ci jamono léegi dem nañu ba am na ay mbootaay yu nga xamante ni ñu ngi jóg di jéem a wut liberté pour ñu may leen góor ak góor di takkante ni góor di jóge di wuti soxna jigéen ak jigéen itam di takkante ndaje bi ci mujj ñu ngi ko defee Égypte pour ñu jéem a daganal loolu góor ak góor di sëy Iblis nee na moom loolu la gën a bëgg te bëgg-bëggam yépp mooy fexe ba loolu am mu ne itam e loolu la yàlla gën a bañ loolu Suleymaan alayhi salaam moo ko laajoon Iblis kon ngeen gis ni ibliis gañe na ci e, benn société te moo di nit ñi àndoon nag yonent yàlla loot ñoom de demoon neen ba seen société la fa moo di nit dem di takk moroomu góoram moo gënoon a nekk mbégte ci ñoom góor jóg di takki jigéen loolu taxoon na yàlla yebal ci ñoom ay malaaka xam naa histoire boobu incha allahu daneen ci agsi ndax ñu ngi ci histoire yoneen yonent yi wante keroog la leen yàlla alage moo di dafa taw ay xeer ci ñoom malaaka yi wëlbatiwaat suuf si seen kaw dëkk ba yépp yàlla màbb ko rey nit ña raxas suuf sa ndax nit ñooñu ay sobe lañu kon su fekkente ni jamono bi ñu nekk nit ñi koy def nañu xam ne na yàlla jëppee woon waa kër loot ña ba taw xeet ci seen ko wëlbati suuf sa noonu la leen yàlla jëppee te bu ñu génnee àdduna danañu ko xam bu baax a baax a baax te bala ñoo génn àdduna itam yàlla dana leen wan misaal mi fii mu mel ni moom ibliis laanatullahi alayhi dañul ba tey di wut ay bunt yoo xamante ni dana ci jaar ba tarxiisal nit ñi waaye ñi ko gën a ñor nag mooy nit ñi nga xamante ni mooy nit ñu ñor ña tànneef yi nga xamante ni yàlla leen tànnal boppam xoolal histoire bi ñu ne bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa génn na àdduna ñu ne lama maata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa axadu fi jihaadihi wa xaraja annaasu wa xalal mawda qaala ibnu abbas qaala ali ibnu abi talib radiallahu anhu lama wadatuhu sallallahu alayhi wa sallam ida bi haatifin yahtifu min daawiyati albayt ya ali laa tagsilu muhammadan fa innahu taahirun mutahhar qaala fa waqaca fi qalbi min dalika shay wa qultu waylak man ant fa inna annabiya sallallahu alayhi wa sallam amarana bi hada wa hadihi sunnatuhu wa ida bi haatifin axar yaxtifu bi aclaa sawtihi gassilhu yaa ali fa inna alhaatifa al awal kaana alcheytaan xasada muhammadan sallallahu alayhi wa sallam an yadxula qabrahu mugassalan qaala jazaaka allahu xayran qad axbartani anna dalika iblis fa man ant qaala ana alxadir xadartu janaazata muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ne bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àdduna nee nit ñëpp génn pour ñu war a waajal néew bi sangu ko e, sangu ko war ko jullee nag suul ko mu nekk itam moment bu trist jamono bu nit ñëpp jaaxle jamono bu jullit ñu bari saalite ndax ki gën ci mbindeef yi tey ji ruuxam wuy ji na boroomam Seydina Ali wax na Abdullah ibnu Abbas moo ñu nettali nee na Sidna Ali moo ko wax ne ko Abbas man de bi ma jëlee yonent bi sallallahu alayhi teg ko pour sangu ko nee na dégg naa benn baat ci kaw asamaan si mu may woo nee na di ma woo naan ma yow Ali bu leen sang Muhammad bu leen ko sang ndax nit la ku yàlla setal nit la ku yàlla laabal laab na ci juddu laab na ci dee kon matuta sang nee na bi loolu bi ma déggee kàddu bi nee na sama xol am na lu ci nekk ci ñugg ñugg ndax wax naa baat boobu ne ko woo naa sak toskare yow yaay kan yaay kan ba di ñu wax naan ñu bu leen sang yonent bi yonent bi moo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko moo di sunnaam képp ku génn àdduna ci xeetam dañu la war a sang mu ne foofu nag la baat ba noppee mu ne ma dégg beneen baat bu àddu ci ko asamaan si nee na baat boobu sax moo gën a xawe kawe moo gën a xumb moo gën a neex nee na baat boobu daal di may wax ne ma yow Ali sangal yonent bi sallallahu alayhi wa sangu ko ndax kat baat bi njëkk a àddu baatu seytaane la dafa eñaane yonent bi sallallahu alayhi dugg bàmmeelam fekk ñu sang ko ndax ngëneel gi nekk ci sang néew loola taxoon mu bëgg la tromper kooku seytaane la bu ko déglu sangu ko ndax yonent bi sang sunnaam la te bëgg na ko te bëgg na itam ñu defal ko ko yàlla itam bëgg na ko mu ne ko yu ne ko yal na la yàlla fay yal na la yàlla fay yiw yow kat yaa ma wax ne ma baat bu njëkk boobu ibliis la waaye yow moomu di wax yaay kan mu ne ko man la xadir ma àndoon nag yonent yàlla Muusa maa di xadir ma nga xamante ni man la yebaloon pour ma jàngal ko xam-xamu xaqiqa tey nag maa ñëw pour teewe si julleeg yonent bi sallallahu alayhi dégg naa nag seytaane addu loola tax itam ma bañ moo trompé la kon ngeen gis ne mbokki seytaane musul dañ di bëreek nit ñu foore nii nit ñu amee ba nii pour jéem leen a yàqal waaye rawatina nag ñun ñi nga xamante ni suñuy jëf àggagul fenn ay nit ñoo xamante ni wax dëgg yàlla e seytaane moom daaneel ñu dafay yomb lool kon nag duñu def lu dul rekk ñaan yàlla yàlla nañu yàlla musal ci seytaane ndax seytaane noon la bu biruk noone ci doomu aadama yi mbokk yi gis nañu ne suñu maam aadama alayhi salaam bi mu wàccee fii ci kaw suuf yàlla dénk na ko fi njaboot ndax itam dogal na sayyidatuna Hawa nekk soxnaam bi nga xamante ni moom lay denc wax ne ni itam euh, maam Adam yàlla may na ko fi njaboot wante comme moom mooy nit ki njëkk ci kaw suuf su fekkee dafay jur comme ne nit ñi di jure kon ñuram dana yeex nit ñi itam seen bariwaay dana yeex kon nag am na secret bu yàlla def ci njurum suñu maam xawa moo di ne suñu maam xawa njuram yépp ay cheikh la waaw wante secret bi ci yàlla def itam moo di e, cheikh yi njëkk a juddu kenn ki day nekk góor kenn ki nekk jigéen ñu ne nag cheikh yim njëkk jur kenn ka ñu ngi koy wax qabil moom cheikh am moo doon iqlima beneen e, cheikh ba moo di habil moom itam seexam bu jigéen di labuda ñooñu la suñu maam aadam njëkk am ak saydatuna xawa alquran nettali nañu ko nettali nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba ab naba abnay aadama bilxaq is qarraba qurbanan fa tuqubila min axadihima wa lam yutaqabal min al axar qaala la aqtulannaka qaala innama yataqabalu allahu min almuttaqin histoire bi yàlla moo ñu ko nettali ci alquran wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko waxal jullit ñi fàttalil jullit ñi ne leen amoon na ñaari doom yu nga xamante ni aadama moo leen juróon nettalil seen histoire ndax ñu mën caa waaroo kon histoire boobu moom leen bëgg leen leen bëgg a nettali ci làmmiñu alquran yàlla dogal na ci sharia suñu maam aadam alayhi salaam nit ña boobu bariwuñu léegi nit daan na bokk ak nit ndey ak baay ba pare yoon daganal ñoom ñaar ñu sëy bu ñu bëggante wante sharia ba la mu daganaloon moo di comme Iqlima ak Qaabil ñoom ñaar ñu juddoondoo nekk ay seex yoon daganul ci ñoom ñaar ñu sëy ndax dañuy jàpp ne ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay comme Labuda ak Habil ñoom ñaar ay seex leen ñoom itam donte ñëpp xawaa leen jur waaye dañuy jàpp ne seex yi ñëwandoo ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay kon nag léegi seexu kii day dem sëy ak seexu kële loolu moo doon sharia bi nga xamante ni moo amoon wante yàlla dogal ci machi am ci choix boppam ci bëgg-bëggu boppam mu bind seexu Qaabil nekk ku rafet mu di Iqlima nekk ndaw su rafet seexul Haabil nekk itam eh, jigéen joo xamante ni daal xam naa moom eh, li ñuy wax naan léeg-léeg nit ñi di ko wax naan ah moom de poonum piir la waaw dàq na poon poon dàq na ko maanaam daal rafetul ñaawul wante bi nga xamante ni dem neen ba tollu ci war a denc soxna Adam ne leen ah bi nag li mu tëral moo di Qaabil yow yaa war a takk Labuda Haabil yow yaa war a takk Iqlima coow lu rëy nag am Qaabil ne man du ma nangu mukk eh, sama seex bi di sëy ak Haabil man sama seex laa bëgg a takk ndax moom moo dàq Adam ni ko waaw moom moo dàq wante lii la yàlla tëral kële moom nga war a tàkk ndax kii comme yéen ñaar ay seex ngeen mënu leen a sëy ndax dafa araam boo ko defee yàlla dana la jéppi dana la génne itam ci xadaraam loolu def ñu gi ñu gi xol ci moom mu lànk daal lànk gu fés wan baayam daal ne ko atte bi daal d'accorduma ci léegi daal li mu bëgg moo di daal takk kii di sama seex mu ne ko nag sharia bi nangu ko su fekkente ne nag werante am na ci kenn ku nekk ci yéen ñaar na génnee na génnee ab sarax ngeen teg ko ca montagne bële su ngeen ko tegee ca montagne bële yàlla dana yebal safara wu jóge ci kaw asamaan bu mu jël ci seen ñaari sarax yi sarax bu mu ca jël kooku la àndal fekk boobu bu njëkk ba boo dee sarax doo sarax nit ki waaye danga daan jël sarax bi rek teg ko ci barab dana am safara buy jóge ci kaw asamaan jël ko loolu mooy wane ne yàlla nangu na sarax bi wax nañu ne Adam alayhi salaam dafa séddale woon e, liggéeyu këram ñaar dafa jël jur gi mu di bëy yeeg nag yeeg xar yi daal di koy jox Habil ndax Habil xolam dafa oyof ndax mu am yërmande ci jur gi ndax nit ku baax la woon ko oyof xol mu jël nag mbay mi féetale ko xabil ndax dafa nekkoon nit ku wow xol te dëgër bopp waaw xam nga nit ku wow xol te dëgër bopp boo ko joxee ak jur dana dóor jur ga ba ñuy bëgg a dee mën nañu mar sax mu leen di seetaan du am yërmande ci ñoom looloo taxoon nag ñu jox ko mbay mi bu dee mbay mi nag moom eh, garab gi boo ko doon dóor fii ba suba eh, kenn du la wax dara ñax mi boo ci doon boo ko doon dagg fii ba suba kenn du la wax dara looloo tax comme xolam bu wow moo tax ñu jox ñu féetale ko mbay mi léegi nag qabil moom comme baykat la mu dem ci la mu bay wut ca dugub ak gerte gu ñàkk solo moom la jël jëlul sax dugub ju baax ja waaye dafay jël la gën a ñàkk solo ca la muy bay moom lay génnee comme sarax waaw habil nag moom dem seet xar yi mu yar mu seet ci xar yu duuf tabaarakallaahu te rafet waaw seet na ci xar moo xamante ni moo ko yaral boppam doon ko toppatoo bëgg ko lool xar mi bu doon jamono bii la ñu ne boo ko jaayee cinq cent mille du du du taxawaalu dinañ ko jënd lu tax ndax ni xar mi rafetee ak ni mu suure moom la jël nag moom ren di ko defar ko ba mu jekk mu jël ko teg ko ci kaw montagne bi ni ñu taxawee suñ maam Adam taxaw suñu maam Xawa taxaw Habil taxaw Qaabil taxaw Iqlima taxaw Labuda taxaw ñoom ñëpp ñuy gis ñu gis benn safara bu jóge ci kaw asamaan daal di ñëw daal di yëkkate xar mi rekk daal di dem ak moom dégg nga e Habil nag e Qaabil lam fa bàyyi woon ci dugub ak gerte moom kenn laalu ko moom foofu leen ko bàyyi suñ maam Adam ne ko kon lii de dafay wane ne yàlla sa rakk ji la àndal kon nag li ma bëgg moo di iqlima nga bàyyi ko mu dem sëy ak Habil te yow nga jël la Labuda sëy ak moom parce que kat loolu la yàlla tëral soo defee nag leneen lu dul loolu ah mën nga ci jëlee nag du may yàlla léegi bi nga xamante ni nag ndaje ma tas na qaabil taxul mu nangu moom la alquran wax ne watlu alayhim naba abnay aadama bil xaq yow yonent bi nettali leen histoire ñaari doomu aadama ya waaw te nettali bi nag tegu ci dëgg te nga bañ koo nettali comme na ko juif yi daan nettalee ndax ñoom dañ daan dugal ci histoire yi lu ci bokkul di ci dugal loo xamante ni et ay xudaa bilaat la wax la yoo xamante ni teguwul fenn lii nag ma la sant nettali ko ndax ni nga koy nettalee noonu la amee woon id qarraba qurbaanan nettali leen ba ñu jëlee seeni sarax nee na tuddee ma ko fa tuqubila min ahadihima walam yutaqabal min al axar man yàlla nangu naa saraxu kenn ka waaye ka ca des nag nanguwuma saraxam ndax saraxam génnewul ci yéene bu sell wante wax nanu ne alquran wax na ne qaabil daal di ñëw ci haabil tëkku ko ne ko la aqtulan nag giñ naa ne danaan la rey ah mu ne ko waaw lu tax nga may rey mu ne ko yow la yàlla faral yow la yàlla faral nangu sa sarax ba pare sama seex bu rafet bi mu bëgg la ko jox mu ne ko loolu kay man sama yoon nekku ci ne ko innama yataqabbalu llahu min almuttaqin yàlla kay ñamuy nangu seen yëf mooy ña seen yéene sel mooy ña ko ragal te bàyyi ko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mag waaye nag danaa la conseiller demal nga defar sa xol soo defaree sa xol da nga mën a jubóog sa borom danga nga mën a jubóog itam sama baay bii ci kër gi mu ne ko wante nag la im basatta ilaya yadaka li taqtula nii ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis boo yëkkatee sa loxo nag pour fas yéene ma rey na nga xam ne bu boobaa man danaa am muñu téye sama loxo bañ laa dóor bañ la wokk ba sax di la rey ndax man kat inni axaafu llaha rabbal man kat maa ngi ragal yàlla mi nga xamante ni moo di borom mbindeef yi ndax lépp lu ma fi def ci bàkkaar bu ëllëgee danaa ko gis te dana ma ko fay te dara du ci wàññeeku. mu ne ko kon nag jàjjul bul topp sa xol seetal li la yàlla digal te nga def ko lii mbiru àdduna la rekk du dara wante taxul moom xaabil mu jàjju lu dul ne rekk tëkku na ko ne ko danaa la rey boo tàllalee sa loxo pour rey ma man duma la dóor wax nanu nag ni Haabil yaram ak ragal gu mu ragal yàlla moo tax sax mu bañ a topp mag ji wante moo ko ëppoon yaram ëpp ko doole ndax ko xeex fopp wante nag yar a tax wanu ko ne ko ma la ëpp doole ndax magam la wanu ko itam ne ko lii nga may def c'est pas normal damay fayu déedéet dafa jàpp njàmburam xam ne itam yàlla moo di ahkamal xaakimiin te bépp xuloo bu am ëllëg dana ko àtte moo tax mu ne ko iri inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik fa takuna min ashaabi nnaar wa dalika jazaau zalimin mu ne ko man de dama bëgg ëllëg sa bakkar bii te moo di jéem a rey boo légee ba ma reyee itam nga yóbbu sama bàkkaar ak sa bàkkaar loolu nag dana tax nga bokk ci waa safara bokk ci mbooloo iblis ma man Haabil mii de fas yéenewu mu mukk di bokk ci waa mbooloom iblis ndax mbooloom iblis mbooloo la moo xamante ni yàlla gërëmu ko wante alquran nee na fa tawaat lahu nafsuhu qatla axiihi nee na nag bakkanam daal di taxaw temm ci rekk bëgg xaabil rey freeram bii di xaabil lan moo tax ngir rek jigéen jigéen rekk moo tax mu taxaw temm ci rey ko loolu nekk fitna bu rëy ci moom ibliis topp ko ak bakkanam rey ko soo ko reyul dana takk sa sa sa seex bi te bu ko takkee nag Eh, danañu am njaboot te njabootam sax mooy dàq sa sa njaboot ndax habil eh, labuda mi nga nar a takk dafa ñaaw boo ko takkee njaboot gu ñaaw nga ci am kon famille bi daf lay gën ba faw loolu nag defoon jax-jaxal ci xoolu Qaabil loolu tax mu bàyyi ba freeram am bii tëdd di nelaw am na sax ñu wax ni keroog bi suñu maam Aadama alayhi salaam demee di aji màkk ndax yonent yëpp dañuy daan dem di aji màkk ndax aj ba dafa nekk farata ñu ne keroog ba mu jógee dem di aji màkk dafa dénkaane njaboot gi dafa wax ne dafa wax asamaan ne ko maa ngi lay dénk sama njaboot gi ndax kat gis naa ne seytaane mu ngi ci bëgg a dugg ndax xaabil mii kat jaaxal na ma te xaw ma nu may def ak moom asamaan si ne ko ah, man nag responsabilité boobu attanu ma ko nee na mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yi yéen kat maa ngi leen di dénk sama njaboot gi montagne yi ne ko responsabilité boobu ñun attanuñu ko ndax kat nit dafa dëgër bopp te duñu fi duñu fi yenu loo xamante ni. wax dëgg yàlla boo ñëwee dañuy rus nee na mu tourné ne Xaabil kon yow comme yow nag yaay magum kër gi maa ngi lay dénk nga sàmmal ma njaboot gi bu fi xuloo am bu fi coow am bu fi dara am ba ma dellusi mu ne ko waaw ndeke waaw googu mu wax yépp ak caay-caay la làq ca biir moo di sama bàyyi daal bis bu demee tukki ci ginnaawam ci lay rey Haabil mii ndax su ma ko reyul du ma mën a jot sama seex bi moom la alquran wax ni inna aradna al amanata ala alsamawati wal ard wal jibal fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insaanu innahu kaana zaluman jahula kon loolu day wane ne nit léeg-léeg mu taxaw ci ne dana mën a yenu ab mbir na mu waree taxaw ci ak décision yu mat ci wàllu zaahir ndeke ci wàllu baatin bi ay wari kese moo ko lal waaw loolu sax day feeñ waaw tabia boobu moo nekk ci nit ba léeg-léeg ñu dénk la poste ne la ndax danga ko mën a gérer na ko war a gérer nga ne waaw fekk la ci bëgg mooy boo toogee lépp lu cay génn ci wàllu alal yaa ngi koy sàcc sàcc ci suuf di wor sa bopp di wor sa réew di wor sa diine di wor itam société ba la wóolu woon ba samp la foofu moo tax yàlla nekkoon kóllëre daal dénk nañu ko asamaan dénk ko suuf dénk ko montagne ñu lànk ndax xam nañu ne attanuñu ko waaye bañ ko dénkee nit kii di habil di di qaabil moom nee na nangu na ko te yàlla nee na xam naa ne kat tooñkat la xam naa ne itam ignorant la bu xamul dara li muy def xamu ci dara njaajaan njaay gii mu nar a def xamu ci dara moo tax bi nga xamante ni suñu maam aadama alayhi salaam dem na ba mu demee màkk foofu nag la qaabil ñëwee fekk haabil tëdd di nelaw mu daal di yëkkati ngandamal xeer fekk ko fa mu tëdd mu dóor ko ca bopp ba bopp daal di toj haabil daal di say dikkat dikkat ca saasa ba génn àdduna keroog qaabil jaaxle na lool jaaxle goo xamante ni dégg na ay juux dégg na itam coowul garab yi dégg na itam ay bruit yoo xam ne xamuñu fu mu jóge dégg na itam gis na ni asamaan si changé gis na ni jaww ji changé lu tax ndax ñaawuteef teef bu rëy bi nga xam ne def na ko te moom moo ko njëkk a def ci kaw suuf te moo di rey nit nit ki nga xamante ni moo di xalifa yàlla fii ci kaw suuf loolu la alquran wax ni fa tawaat lahu nafsuhu qatla axiihi fa qatalahu fa asbaxa min alxaasirin mu daal di yanu nag rakkam jooju di haabil gannaaw ba mu ko reyee mu yëngal ko yëngal noyuwul mu yëngal yëngal noyuwul mu daal di koy yanu nag di wër moom di daw fu ne mu jëm xamul daf ko war a suul xamul daf ko war a teg noonu xamul daf ko war a aj ci kow montagne yi xamul daf ko war a aj ci kaw garab yi wante yëngatootul defatul dara mu jaaxle lool jaaxle goo xamante ni xamul muy def moom la yàlla di nettali ci alxuraan ne man yàlla ma yebal benn baaxooñ baaxooñ ba moo ñëw di gas suuf si ak begam di ko gas ba mu xóot waaye neen gas ba mu doon gas mu nga doon wutaale lu muy lekk am ñu ne déedéet dafa yebal ñaari baaxooñ baaxooñ yadi xeex ba kenn ka rey moroomam gas suul ko foofu nag la gise ci nekkoon nit bu génnee àdduna dañ ko war a suul loolu la alquran wax ne fa baata allahu guraban yabaxasu fi l ard li yuri li yuriyahu kayfa yuwaari sawata axi qaala yaa waylata aajaztu an akuna mithla hada al gurab fa uwaari sawata axi fa asbaxa min annadimin ñu ni bi ko baaxoñ bi wanee loolu nag ba mu gis ko ca la nag ne man daal ma ñàkk fayda rek man daal maa doye di rek man ndeke baaxoñ sax mooma tane ba wan ma ni ñuy suulee yàlla nee na mujj na nag riccu jëf jooju nga xamante ni def na ko te moo di rey gi mu rey eh, frère am boobu di Haabil te tegu ko lu dul ci bakkanam